jooju ñoo may net ñoo may net li xisa bi si Ibra ñaan moo leen ko net ne moom ñoom ña nga dëkkoon fële ca eh, Saalum bi mu déggee sëñ Tuubaa dafa ñëw jébbalu si sëñ nekk fi yàgg fi loolu di tërbiyewu baayam da doon borom xam-xam bu mag di bind leetar sëñ Tuubaa di ko wax ne ko sama doom ji day xawma loo ko fi téye waaye du xam-xam xawma lu mu mën a doon waaye du xam-xam ndax man xam-xam mom kenn duma wessu diko wuti fenen alquran tafsiral nako nit ñu kenn xamu ñu tol ba lettre ye ya bare lettre ba ci mujju seigne touba da wax seigne ibra ne ko kay delu ci sa bay ndax lii mu wax ci lettre am yi de jalutu ba seigne ibra dem mu bind ben lettre ne ko bo demé nga ko jox sa bay seigne ibra wax na ne bam agge da dafa rusoon a dugg ca biir ngir xam ne mom dañ ko reeteet dañ ko waye neena ba fajar jotee ñu gis ko wax ja bari mu jël leetar ba jox bayam bay bi bam jangé jàngee leer leetar ba ci la noppi ci wax ji nak ci bir leetar bi señ bi da ko ciy woo mu dajalé dëkk bi nak mo doon kilifa dëkk ba mu leena ah, señ bobu ñu wax ci njëreem momay wolu té man dama xamul lu mu wara doy wa dëkk bi sédali ko ñi ne ko ah, yow borom xam-xam nga mun la jaxal ci dara demal wuy ji ñi ne ko ah yow kilifa nga na la fekk am ñu ne ko sab serigne gina am ngub serigne dang fay dem taggo ko bu la baye nga dem wuy ju ko bu la bàyyiwut nga baye mu and ci xalat bobu dal di dem ci dëkkub ab bam mu ci dekk ba fekk ab sëriñam xey dem dar mu fekk fa doomi serigne ba doomi serigne bi ne ko ginaaw juk nga ba ak fi de duma la yebbal waye nak lima lay denk dila ko labiré moy na nga wut ab yobbal di fa xewlo ndax boo fa lekkee dara dang fa tok mu di lu baray bu bare bare bare bare bare ci dekk baba ben bis nak mu dugg ci saxar gi wursi si bi mu ñewé ba njaareem fekk mi nga and xalé bu ndaw boo aw nak señ bi mi ngi turoon sëñ Abdus Kumba ñaan wala señ abdou soxna ñaan sëñ Abdus Kumba ñaan mi nga ànd ko xani aw la turandoo woowu moo doon nett li wax ji may bëgg a wax moo ko nett li kenn ki moo ko nett sama maam ji nee na bi ñëwee ba ci ba àgg ci gaaru njaareem dañu seen ay ponkal yu daw di dem ak dikk naa ana ki ñu wax sa yëpp du kumba ñaan nee na mu wax ci suuf ne waaw kii moo réeg njabar dëgg dëgg dëgg moom lu ko lu ko xamal ne tey laay ñëw daan ni leen maa ngi nii ñu ne ko sëñ Touba moo ne ne woon boo ñëwee ñu yóbbu la dalal la mu daal di ànd ak ñoom bañ démé ñu dalal ko ci bërepp defal ko lépp lim wara am ba añ joté ñu indil ko xéewal yu bari né ko señ bee ko jox ay xéewal waaye néna dafa xéewal ya da ca def ba melné mel xéewlu na ca mu mu ubaat lekku ci ba dëkk san joté ci la génn ci biti dëkk ba ci ay alpulaar yi nekkon fofu mu supp fa soow boole ko manam baray bi mu yoron xéewlu ci dir ci wat bi mu nak ba saani suuf sëñ bi woolu ko sëñ Tuubaa bi muy dem mi ngi sol nee na yére yoo xam ni mag ñi dañoo mënoon a solo yére yoo xam dañ ko demee yére yu rëy kaala yoo xam ne kaala yi mag ñi bu njëkk day am kaala daa def koo xam ne xaw ma lu ko daa tuddee kaala cëm bi càmm ko xaw ma kaala goo day dem ba ca tànk ya. sol yu tol bu rëy ne mu ñëw ci biir kër gi dugg ci kees yi ba fi kees gi kees gi nga xam ne fi la sëñ Tuubaa ne mu gis sëñ toog ci suuf tek fi ci wetam ak basang góor gi bi ñewé ci basang gi mom la né faax tok jox loxo señ bi señ bi né ko wax ak mom jamanté mom né ko lettre lettre yi nga doon de bataaxel yépp agsi na gi né ko lu ci nekk rek ko wax ndax day amna luma ci yalla may tafsiral nako ay mbolo yu kenn xamul nu toll sëñ bi dem ak mom ci alxuraan di ne ko aya sangam nan ngeen koy tafsire mu wax wax wax wax wax ba lam ca xam jeex Sëñ Tuubaa ne ko loolu aw yoon la ci tafsir bi waaye des na di ko waxaat yeneen i maanaa yoo xam ne keroog la ko mës a gis keroog la ko mës a dégg te lépp sëñ bi sëñ bi da koy delloo ci biir alxuraan ji ak xadis yonte bi maanaam maanaa yoo xam ne ci biir aaya bi génn ko góor gi xam ne lii wér na te génnul alxuraan ak sunna sëñ bi dem ak moom ci beneen aaya nu ngeen ko tafsiré mu ne nangam ak nangam nangam ba jeexal señ bi ne ko loolu aw yoon la ci waye des na diko ci waxat diko ci waxat diko ci di ba goor gi yéemu bu demee ba timis jégué señ bi ne ko man nga dellu ci dal ba bi ci dal bi turono wi mu andalon kérok goor gi bimu dafa cër yi dafa dé yu mag yi ab farok bi bi bi bi bi nga xamee ne indi nañ reer bi mu reer ci julli gee waaye nee na góor gi neen doon ku mën a julli fi ne dara fanaane julli waaye keroog dafa tàyyeel bu mujjub julli ci guddi gi biñ xëyee suba itam biñ xëyee suba bi añ bi ñëwee dañ ciy xewlu baraaj moom fële la ko teg moom boo boo ca tëkku san sa ci waxtu wa ko señ bi woon señ bi wolu wat bi mu bi dafa bayyi mbubb mu mag ma forog bi rek la indaale bi mu ñëwee itam fekk señ bi kess gi mu ko fekkon la ko fekkat fekk señ bi tek ni basang gi toog nii ci suuf mu ñew bayyi fa basang nga toog ak señ bi ci suuf ni señ bi dama bëgg bala nga wax dara ni dimbali ma ma jibbal sama bop des na xisa bi des na waaye da nga yëg ne kooku dafa ump dafa am dafa umpule woon Sëñ Bamba waaye bi mu ko xamee dal na koy jox bopp Sëñ Tuubaa mooy kooku képp ko ko xam. amul benn bëgg-bëgg wala benn yitte wala benn xemmanteef wala lenn benn julli pour Sëñ